mbokki baaxoo di teewlu xibaaru bambuk dal leen ak jàmm ci seen tënkum xabaaru euh, bés bi euh, docteur aadama euh, Badiane nekk doomu Koungheul amaloon na nag ay journée de consultation gratuite ci commune bu Saly Escale loolu nag tax na ci jàkkaarloo bi nga xam ne amaloon na ko ab taskati xabaar yi mu mën a fësal ne lu toll ci 196 ci ay euh, doomu aadama euh, daal dinañ leen euh, consulter gratuitement waaye daal di leen dimbale ci wàllum médicament loolu nag tax na moom doomu Koungheul boobu di docteur Adama Badiane mu jàpp ne premier édition consultation gratuite bi jàpp na ne daal dinay am réussite waaye tamit daal dina ci profito daal di sàkku ci eh, kilifa yi moo xam ñu nekk ci gox goxaati moo xam ñu nekk ci eh, bopp eh, réew mi ngir ñu daal di fexe ba fi ñuy fajee muy plateau médical bi ak bërëbu fajukaay mu gën a mun a ñoŋ gën a mun a jug ngir que ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ daal di sant ñi daal di toppatoo ñi tawat ñu daal di koy mën a def ci anam bi moo xam ne ci la gën a mun a jaare yoon. gannaaw loolu daal dinay sant gërëm ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci bés boobu ba mu réussir waaye tamit askan bi nga xam ne rawatina ndaw ñi ñëw nañ taxawu ko bu baax ci liggéey bi. gannaaw loolu nag daal dinay xam leen ne fas yéene na wéyal liggéey bi ci commune yi nekk ci département bu Koungheul yëpp ngir daal di leen dimbale ci xam-xamam waaye tamit ci wàllum wér-gi-yaram ngir ko ñëpp mën a nekk ci situation bu baax. ci waxtaan bi nga xam ne séq na kook xibaaru bambok Seydina Omar Dramé nekk coordonnateur de la presse locale waaye tamit nekk ki nga xam ne moo sos euh, concours récital Saint courant bi nga xam ne dafay am Koungheul euh, ci département bu Koungheul te mu koy amal fii ci commune bi moom nag daal dinay xam le ne ñu ngi ci waajtaay bu baax euh, fi ñu toll sax lépp daal dinay ñoŋ ndax xam nañ lu toll candidat yi ñan ñoo fas yéene jongante final bi mu toll ci fukki candidat ak ñett waaye tamit daal dina xam leen ne fas yéene na ci invité kilifa yi nekk ci gox bi yëpp moo xam ñu yor euh, muy kilifa autorité administrative yi ñu yor dëkk bi rawatina kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci euh, dëkk bi. Euh, gannaaw loolu tamit mu ngi xam le ne programme bi mu ngi war a am niki dimanche 14 mais wet kër fële ne wet ka ñoom ki nga xam ne mooy per Djibi Sakho nekk ci côté terrain bi nga xam ne waa jamono fa la ñuy entraîné ci wetu église ba. buñ jullee tàkkusaan ba pare nag ci lañ fas yéene euh, tàmbali euh, concours bi loolu nag euh, tax na mu daal di koy tuddee ay doomu Koungheul ngir gën a jëmmal bés bi ñu mën cee lim nag ki nga xam ne mooy Ousmane Ndimbalaan laa Samba Ndiaye sekk ci wàllum góor ñi ci wàllum jigéen ñi maire Ndiémé Ndaw lañ ko daal di tuddee ak Amina soow gannaaw loolu tamit moom Omar Dramé daal dina ci rendre hommage ñaari nit muy Aliou Top nga xam ne Eh, yàlla dafa def mu génn àdduna waaye nekkoon mu mosoon nekk parrain wu concours bi waaye tamit ki nga xam ne Malick Sall nga xam ne bokk na si ñi nga xam ne eh, ñoo sos eh, mbir mi ak Omar Dramé. loolu nag tax na Omar jàpp na ne même bu fekkee ne organisation métti na lool moom doomu Dramé bi jàpp na ne incha allah rabbi lépp lu mu mën dina ko def. ndax alxuraan dafay loo xam ne lu baax la te lu ci waaye def rek daal di ciy gis boppam ba tax na mu ngi wax askan bi yëpp rawatina képp kuy wuyoo ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna ngir ko ñu teewee ci euh, final boobu nga war a xam mu ngi am niki dimanche 14 mai démb ci déclaration bi nga xam ne daal doon na koy def leader Pastef di Ousmane Sonko daal doon nay àddu ci situation bi nga xam ne moo am fële ca Ngor doon sàkku sax ni ñi nga xam ne ñoo quartier yi dend ak Ngor comme Yoff ak Wakaam ngir ko ñu dem jàppale Ngor ci xeex bi nga xam ne ñu ngi ko amal euh, force de l'ordre yi mu jëm ci wàllum euh, terrain loolu nag tax na maire bu Ngor Maguette Dieye nga xam ne Maguette Ndiaye nga xam ne amaloon na euh, président Macky Sall daal doon na leen recevoir ngeen ñu waxtaanee lu jëm ci problème euh, Ngor bi. ba mu fa génnee nag daal dina yëkkati kàddu di xam le ne ñoom wootewuñ xay wootewuñ lépp loo xam ne dafay indi gàllankoor ca euh, gox ba même bu fekkee ne dégg na ku mel ni Ousmane Sonko daal di yëkkati kàddu yooyu moom nag lim jàpp mooy maire bu Ngor ne liñ bëgg daal mooy régler mbir mi si jàmm ak salaam waaye ci benn quartier. ngir ñu ñëw daal di semer euh, li nga xam ne mooy ay indi ay jafe-jafe ci euh, seen diggante takk der wala boog si seen gox boobu di euh, Ngor. loolu nag tax na mu jàpp rek ne waxtaan daal moo mën a indi mbir mi te lépp lu ñu mën pour daal di koy saafara dinañ ko def waaye tamit sàkkuwuñ ci kenn muy ñëw di fa xeex wala di fa indi lépp loo xam ne ñoom daal duñ koy bëgg. membre de la conférence des président ñoom nag nga xam ne ci biir mën nañ cee lim le président assemblée. vice président yi ak président commission yi rapporteur euh, général commission finance contrôleur budgétaire ak président groupe parlementaire ñoom ñëpp daal dinañ leen convoqué ni ki alxamis fukki fan ak benn ci weer mai bi ñu dënmal bu 12 jotee euh, fële ca assemblée nationale euh, li ñu fa war a waxtaanee nag bokk na ci daal di defar calendrier travail bi nga xam ne fas yéene nañ examen Euh, affaire yi nga xam ne jamono ji moo nekk foofu ci euh, assemblée nationale te ay député dugal ko fa wala ñeneen ci loolu nag euh, bureau assemblée bi ñoom dinañ daal di dajee daal di taxawal li nga xam ne mooy code de conduite ci question orale yi ak question d'actualité yi nga xam ne député yi dañ koy faral di amal foofu di fàttali ne fukki ñaar fukki fan ak juróom-ñetti ci weer avril bi ñu génn ñoom nag daal doon nañ dajee saytu ay poñ yoo xam ne daal doon nañ ko fa indi waaye gis nañ ne yëpp dañ ko rejeté ba mu des euh, haute cour de justice bi nga xam ne opposition bi sàkkoon nañ nga teg ko ngir képp koo xam ne ministre nga wala DG nga xam ne da ngaa luubal boo fa jógee ñu daal di lay mën a euh, topp. ñu des si wàllum euh, tàggat yaram ak demi-finale aller Ligue des champions bi nga xam ne amoon na démb ci diggante Manchester City ak Real de Madrid amaloon na amoon nag fële ca Santiago Bernabéu yow mu doon match boo xam ne ñi nga xam ne dañuy seetaan football daal doon koy xaar bu baax. waaye liñ ci nemmeeku mooy match bu neex la waaye de ñaari équipe yi dañoo mujj def match nil un bi partout gannaaw ba nga xamee ne Vinicius buy football Real Madrid moo njëkk dugal Kevin De bi nga xam ne mooy milieu de terrain bu City moo daal di égaliser ci noonu nag lañ daal di eh, tàqalikoo nag jamono ji nag eh, demi final retour bi nga war a xam ne City moo war a recevoir ci stade eh, ci lañ jàpp ne ci lay mbir mi daal di fas ci lay mbir mi daal di leer kii kër ñu mën a xam ñam ñaar kan moo fas yéene dem final di xaar ñaari Milan yi muy Inter Milan ak Milan AC ci loolu sax ci lañ leen di xamal ni ki ni ki tey beneen demi final bi derby italien la war a am ci Milan AC ak Inter Milan bu 19h jotee.